Fadilou Keita doom ci Nafi Ngom Keita moom lañ daal di arrêté li ko waral nag du leen lu dul moom ci page Facebook am dafa am benn opinion boo xam ni mi ngi ko partagé jëmale ko ci li nga xam ne mooy situation politique bu Sénégal ki nga xam ni moo di Ahmed Suzanne Camara jamono yii ñu weesu dégg nañ ko fi ci plateau wu Sen TV mu daal di ne ña nga xam ne ñoom ñoo réer Didier Badji ak Fulbert Sambou ñoom ñaar ñooñu dañ leen a fàtt dara waralu ko lu dul dossier wu ki nga xam ni moom moo di Pape ale Niang tey Fadilou kayta ñëpp xam ne moom mooy doom ci Nafi Ngom Keita ma nekkoon ca nag nekk ab responsable ci biir fa moom lañ daal di téye dara waralu ko lu dul dafa am ab xalaatam boo xam ne def ko partagé ci page Facebook am jëm si nga xam ni moo di Didier Badji ak itam ni mu gisee général Moussa Fall taxawaayam ci biir gendarmerie lu ni mel moo tax fadilu Keita actuellement dañ koo arrêté waa Pastef yëpp nag jug taxaw ngir daal di xeex à ce que moom ñu daal di koy libérer ndax arrestation bi nga xam ne def nañ ko ci moom jàpp nañ ne c'est une arrestation arbitraire tey jii bu amoon koo xam ni war nañ koo daal di woo léegi léegi léegi nekkul kenn ku dul Ahmed Suzanne Camara mi taxaw publiquement ne Didier Badji ah, ak Fulbert Sambou dañ leen a faat ndax li ko waral du lenn lu dul ñoom dañoo laalee ci dossier wu pap Alé Niang ba nga xam ne rapport bu gendarmerie nationale lañ ca partagé alors amagul benn communication bu officielle bu jugee ko ci DIRPA bu jugee ko ci gendarmerie wala bu jugee ko ci l'armée bi en quelque sorte loole lépp di wane que ni suñu réew mi am na ci loo xam ni faw ñu daal di koy waxtaanee mooy laaj wu ñuy samp saa su nekk ndax nu sommes dans un pays de démocratie ndax ñun ñi ngi ci réew moo xam ne tout le monde est sécurité ndax ñi ngi ci réew moo xam ne liberté d'expression liberté de presse mi fi am ba tey ndax ñi ngi ci réew moo xam ne ku ci ne am nga droit wax sa xalaat ak sa nga xam ne mun nga yëg ci sa biir xool réew doy na waar sénégalais yëpp ñi ngi jooy ndax am na ay priorité yoo xam ni moom moo fi waroon nekk waaye talu ñu ko li ñu lijjanti saa su nekk mooy mbirum politique ndax ñëpp gis nañ ni saa su nekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci langum politique gi fare ci opposition bi ay jafe-jafe dong la ñuy te yooyu la jafe-jafe jógewul ci fenn fudul ci fi nga xam ni moo di ci nguurub Sénégal opposant yëpp taxaw nañ wax ko ne président Macky Sall dafa instrumentaliser la justice dafay utiliser justice ngir daal di éliminer ay adversaires politiques noonee lañ jàppee na ñoom lañ ko defee tey ki nga xam ni moo di Fadilou Keita nekk seen ab nawle ñu bokk ak ñoom parti di Pastef bokk ak ñoom li nga xam ne mooy combat bañ doon mën a depuis le te ci fàttali kii nga xam ni moo di Fadilou Keita moom doom la ci Nafi Ngom Keita ma nekkoon ca nag Nafi Ngom di Didier Badji moom moo nekkoon garde du corps am pendant plus de douze ans nekkoon koo xam ne ku jege famille bi la ñu bëri nag jàpp ne te amaguñ ci lu leer que ne Fadilou Keita moom noonu moom la Didier Badji jox li nga xam ne moo di rapport bu gendarmerie nationale mu daal di koy jébbal Ousmane Sonko supposition la njort la hypothèse la nekkut loo xam ne moom mooy dëgg gi waaye loolu la nit ñi yaakaar que ne moo am waral actuellement jafe-jafe yi nga xam ne yëpp am na ci diggante famille Sambou famille Badji ak famille bu Nafi Ngom Keita bi nga xam ne tey ab doomam di Fadilou Keita moom lañ daal di arrêté AGT News